li wax ne nag dañ ko soppatem aju ci cangaayal néew ba dañoo bari lool boo ko dee wàññi dana dem ba xaw a mat fukki yëf ak yent man ngaa njëkk a wàññi lam ne woon kay sang bu fekkee kookee muy sang dañ doon sëy mën naa bañ a sang te tàmbalee jumbax ba ci bëti boom mën na koo bañ a suturaal waaye sopp nañ nag mu suturaal ko man ngaa njëkkee boobu ci sopp gi nga teg ca na summi lam soloon te bañ koo sang noonu ci kaw yéreyam sol yonante bi rek lañ dagleel loolu sallallahu alayhi wa sallam moom bañ koy sang dañ caa bàyyi mbuub moom soloon sang ko noonu rek te bañ koo summi dañoo sopp nag kuy sang ab néew gannaaw ba nga suturaalee nga tàmbalee jumbax ba ci batiwoom nga summi nag leneen lu bokkut ak loola nit ki lu mu soloon ba mu des yaramu kese nag ca la ca ngaa lay gën a sete loolu lu ñu sopp la ñetteel ba bëgg nañ boo koy sang nga teg ko fu yëkkatiku fu mel ne ab comptoir wala fu mel ne taabal tiim ko di sang mel ne ne mooy gën a jàppandi ñeenteel ba dañoo bëgg cangaay la tóol benn moom tóol na waaye daa néew ba ëpp ñaar dafa tóolut ñett nag moom tóol na te dox koo sonle teewu nag mën ngaa dema dem ba ci juróom-yaari cangaay waaye nag juróom-yaari cangaay moom bul ko weesu moom daal yetti cangaay mbaa juróomi cangaay mbaa juróom-yaari cangaay waaye nag bu ñu weesu juróom-ñaar juróom-ñaar doy na sëkk-sëkk juróomeel mooy taamu nañu balaa tàmbalee sang mu bës biir ba ndànk ba sobe si naroon a génn génn teewul nag ba muy sang ak ba mu tolloo ci di ko jàppal ak sax bu noppi woon ca njàpp maag ca ngaay la dara ci sobe génn itam di ci wàññi dara dañu koy raxas rek ba mu set daañu sib sax loolee génn tax muy baamu njàpp ma mbaa dara juróom benneel mooy bu tolloo ci raxas sawukaay baag buntu suuf ba diggante boobu nga jël morso bu talatal laxaar ko ci loxoom te bañ a àggale jëmmi loxoom ci awra yi kookee muy sang ndegam rek su jëlee sagar bu talatal muur ci loxoom raxas du see foofa set kon du sañ a àggale loxob keseem foofa su fekkee ne nag foofa dafa àgg ci balaa seet dëgg-dëgg da ca àggale loxoom waaye bu defee morso ci loxoom rek foofa du set bu baax kon sañ naa àggale loxol keseem loxol boppam mën na ko àggale foofa ca sawkaay baag buntu suuf ba raxas ba mu set ñu sopp nag muy set ndox bu baax a baax am na nag ñu ne du fa sañ a àggale loxoom benn yoon ndax kookee kat laata muy faatu yoon mayoon na ko muy jullee noonee di julliwaale sobe sa ndax ngànt kon nag bu xasee faatu ba raxas rek jébbal boromam des ci kenn du sañ a àggale loxo ba ca foofee ca awraam loxol kese suñu su ko faa àggale waaye lii mu wax nag moom bari nañu ko wax mooy bu fekkee foofa daal balaa seet dëgg-dëgg sa loxo dëgg-dëgg dafa àgg kon da nga fa sañ a àggale sa loxo juróom ñaareel mooy sopp nañu ñu teel koo jàppal jàppum benn benn niñ ko miine woon rek ci cangaayul janaa ba nga xam ne gannaaw bu raxasee loxo yi tàmbale ci te ci baaraam ya ba ci tikku jaree ñetti yoon rek jukki li tàmbalee jumbax ba ci bëti woom ñu daal sopp rek daal koy jàppal jàppum benn benn dañ ko daan defe naka jekk door a jàll nag àggale cangaay la ba tey nañu soppe woon kuy bëgg a sangu cangaayat farata te fekk yaramam amee sobe bu njëkk a dindi sobe sa door a tàmbali cangaay la fii itam noonu lañu ko fi soppee bala mu koy sang cangaay lay mel ne cangaay ak janaaba bu fekkee mu taq sobe taamu nañu mu dindi sobe sa balaa tàmbalee sang boo delloo itam ci yetti cangaay ya te jàpp anam ba mujj ñu waxoon ne moo gën a jàppandi kon bul fàtte ne cangaay lu njëkk dañoo soppoon nga defoon ca matière bu koy setal bu baax mel ne am ndéem mañ ruq ba mu nooy wala saabu xëy na bu dee léegi dañ ko waxe woon saabu rek mooy gën a jàppandi cangaayal ñetteel la itam ñu soppoon ñu def ca lat ko lañ buñ amee kaafoor moo gën buñ ko amut buñ am rek baax na sopp nañu it mu jël morso bu set fompe ko bëñ ya jëlaat morso bu set fompe ko biir ñaari pax yi bakkan ya sopp nañu itam bu ko dee njàppal njàpp benn benn moomee bu tolloo ca galaxndiku ak bu tolloo ca saraxndiku mu xaw a dëngal bopp ba ndànk ba nga xamee ne bu defee ndox ca gimiñ nga mbaa ca ñaari paxi bakkan ya du tax mu jàll ca biiram bu dëngalee bopp ba ndànk rek ndox moom def ca gimiñ nga mbaa ca paxi bakkan ya mën naa bañ a sar di jàll ca biiram ñu sopp itam bu ko sangee ba àggal mu jël morso bu set mel ni ab sarbet fompe ko yaram wa ba yaram wa fendi mu door koo solal càngaay la dañuy bañ bu ko solalee càngaay la ca noonee yaram wa tooyee buñ ko dugalee ci biir bàmmeelam càngaayu bàmmeel ba mën naa tax càngaayam yooyee gaaw a xar ñu sopp itam bu ko sangee ba àggal bu fendal ko ba mu fend rek mu daal di gaaw sàng ko ndax dañuy bañ sobe génn bañ di ko digal mu di ko raxasaat ñu sopp itam mu tërale ko wetu càmmooñ nga ndax mën a jiital raxas wetu ndeyjoor ga su raxas wetu ndeyjoor ba àggal nag dal ko tërale ci wetu ndeyjoor ga ndax mën a raxas wetu càmmooñ ga maanaam daal dañu soppee cangaayal janaaba nga njëkkee wetu ndeyjoor mujje wetu càmmooñ noonu lañ ko soppi fii su bëggee jëkkee nag wetu ndeyjoor ga faaw kon mu tërale ko wetu càmmooñ door ko wëlbati nag mu tëdd ndeyjoor ngir mu mën a raxas wetu càmmooñ ga sopp nañu itam koo xam ne sëngoo nekkoo di dimbale kay sang nga bañ faa nekk bañ a fekkee fa ñuy sange ñu sopp nag moom mi nga xamee ne moo daan sang néew bi bu ko sangee ba noppi moom ci boppam nag mu dem sangu ji dañoo bëgg rek bu sangoo yaramam dellu xëy na sawaraat yaramam dellusiwaat ak itam ni xelam nekki woon ci mbirum dee ak kam doon sang xëy na bu sangoo rek dellu amaat cawarte xelam itam ak xolam xaw a dellu si buñ àggee ca càngaay la moom itam yéen ca sopp dafa bari lañ ci njëkk a tudd mooy càngaay la weex ndax ibnu xabaas ne yonante bi dane woon ilbasu min thiyaabikum albayaada fa innaha xayru thiyaabikum wa kaffinu fiha mawtaakum rawahu tirmiziyu wa qaala xasanun saxiix wa abu daawud wa bunu maaja ibnu xabaas na yonte bi dane woon yéen seen bopp dee leen sol yére yu weex ndax yére yu weex moo gën ci yére yi ngeen di sol tekke ne dee leen sànge itam seeni néew lu weex ñu sopp itam gannaaw ba mu weexee mu bokk ci wëttéen fekkee mën naa nekk coton moo gën ñu sopp itam ñu xël ca cuuraay maanaam cuuraay lu ne xet jël càngaay la suur ko cuuraay lu ne xet ñu sopp itam càngaay ya ëpp benn ndax benn càngaay tóol na waaye dafa néew dañoo sopp càngaay ya tóol ba noppi nag weesu benn ndax benn tóol na waaye dafa néew bopp ñaar moom dafa tóolut ñett nag tóol na juróom tóol na juróom ñaar ba tey baax na ma def naa takk ne bu dee góor dañuy sof ñu defal ko juróomi càngaay la koy def juróom nag mooy dañ koy wutal kaala wàññi ko benn càngaay ñaw mbubb sol ko mbubb mu jot jàppe ko yaar sol ko tubéy nag mu yett ñu boole ca nag ëmbe ko yeneen yaari mbalaan maanaam ëmbe ko la xaare ko yeneen yaari mbalaan loolu kon juróom lay doon bu dee jigéen moom ñu sopp juróom yaar dañ koy wutal muuraay ñaw mbubu solal ko wutal ko askumba mu yett su ko defee nag ñu sànge ko maanaam laxaar ko ci yeenti mbalaan soo boolee yeenti mbalaan yi te wàññi muuraay ga muy mbalaan wàññi mbub ma nga ko solal muy mbalaan wàññi kumba sa kon juróom yaar lay doon tubéy ji ñu wax ci góor buñ ko ñawee muy tubéy tàmbalee jumbax ba am bëti woom ya baax na waaye bu ñu wëtee lu mel ni ab sér wodde ko ko ni jigéen di woddoo itam ba tey baax na kaala gi ñu wax ne bëgg nañ ñu defal ko góor ga dañoo bëgg dañoo bëgg kaala ga am aw langal wax na nga koy delloo ca kanam nga waaye doo ko delloo ci gannaaw mel ne ba muy dund masaa kaalawu di bàyyi langal wa ci gannaaw da ngay def langal wa ca kanam nga te lu mu gàtt gàtt nag moom langal wooyu mat ab xasab ñu sopp itam benn càngaay bu ne ñu def ca lat ko leñ càngaay ba nga xam ne mooy njëkk a tafu ca yaramam ci biir càngaay loolee ca lañ njëkk a def lat ko leñ tàmbaliwaat nag càngaay bu ca topp rek moom it ca biir ba ñu def ca lat ko lañ nga xam ne kon diggante càngaay lu ne ak moroom ma ci ni càngaay yi limoo fu ci ne day am lat ko lañ ñu sopp itam ñu wut wëtteen def ca lat ko lañ ba noppi nag taf ko ca bët ya ak ca bakkan ba ak ca ñaari noppi ña ak ca buntu suuf ba ak itam fépp foo xam ne bu masaa di sujjóot daana bokk ca sujjóot ba moo xam ca jëba la ak jëng yam daan rëppeel ak bëtiwo yam daan sukk ak baaraami tànk yëpp bëgg na ñu def ca lat ko lañ ba tey nooy nooy yaram wa ni ki teppaxu yi ba lépp yu saxe ak ruq yu mel ne poqtaan yeeg xóot-xóotu bëti wóor yi ak gannaaw nopp yi fu mel ne foofu ba tey bëgg na ñu def fa lat ko lañ yooyu ñu wax ne dañoo sopp ñu defal ko ca lat ko lañ yooyu yëpp la ne doonte daa fekkoon sax mu nekk ci armal aj wala xumra ñu aay woon ko laal xeetu gët wala mu doon jigéen ju iddawu nga xam ne dañ ko aay woon lépp luy xeetu waajtaay ak lépp lu ne xeet léegi mu xës na faat rek moom daañu sopp ñu defal ko lat ko lañ joojee waaye nag ka leen koy defal moom bu mu fekk mu armal bu mu fekk mu nekk ci idda ki faatu ba noppi moom fekkoon ko ci armal ba fekkoon mu iddawu daañu ko defal lat ko lañ jooju waaye nag ka ko koy defal bu mu fekk mu tollu woon ci armal ba fekkoon muy iddawu idda ji nag idday ténj la ñuy aaye jigéen ja waaj mbaa mu laal at ko la ñeg lu ne xet waaye bu dee idday ku tàggoog borom këram rek moom mën naa lalat ko lañ mën naa waaj duñ ko ko aaye sopp nañu bu amee yére yoo xam ne yaakaar nañ ca barke di ki yére yoo xam ne moom la daan jullee ji jumaa mbaa yére yoo xam ne ba muy aj mbaa ba muy xumra moom la soloon mu yére armal sopp nañ ñu sàngi ko ko ndax yaakaar ca barke soxna suñu wax umu xatiyata bokkoon ci wàllu saar dane dañu doon waajal tool ji jigéen yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonante bi wax leen nañ koy waajale teg ca ne leen bu ngeen sangee ba noppi ngeen yëgal ma ko bañ sangee ba yëgal ko ko mu génne tubéy yi boppam joo xam ne moo ko daan sol wax ne defal leen ko ko njiitlaay mu njëkk ci yaramam loolu nag moo tax ñu jàpp ne ku amoon ay yére mbaalu ko nuru lu bàyyi ko ci ku ñu yaakaare barke moom it mën naa wax bu génnee àdduna ñu defal ko ko muy njiitlaay mu njëkk ci yaramam ku am sax ndoxum sam-sam mën naa wax ne su ma fi bàyyi ko nañu ma sange ndoxum sam-sam mii mbaa boog buñ ma sange ba noppi nañ ko sotti ci sama yaram day door wax nag ci génn àdduna fuñ ko war a wutalee càngaay laag mboolem xeeti waajtaay ya nga xam ne moom lañ koy waajal ba jébbal ko boromam ni ki buñ dee fay ci sang ga mbaa gas ak yooyu mu ne moom ci boppam bu fekkee ne bàyyi na alali boppam ñu ko mën a defal loolee loolee njëkk génne ci alalam muy la koy sang ak buñ dee fay dara ci xeeti waajtaayee loolu mooy njëkk génne ci alalam lu may nag am na ku mu ameloon àq joo xam ne daa am lu mu ko ca tayle woon ñu xool xool loolee mu ko tayle woon dong la am ci alal mel ni moom daal gis nañ ne bàyyi nab lal waaye nag lal ba daa am ku mu ko tayle kooka lebaloon ko bor dañuy jàpp ne kookee leble woon yëfam bañ tayle ko lal ba moo ci gën a yey dañoo tudd rek aji tayle woo waaye jàppal ne jëmm jum bàyyi joo xam ne daal ak jaambur aju na ca jaambur boobee moo gën a yey ca loola ne bu fekkoon ne jamono yi jaam amee dañoo xool xool gisuñu leen lu bàyyi lu may ak jaam waaye jaam boobee kat tooñoon na keneen ci misaal dagg loxoom ba kookee war a fay ci jaam bi kon jëmm jooju ak jaambur aju na ca lu mel noonu ak jaabur joojee moom la ñuy jëkkee bu bàyyee nag jenn jëmmi alal joo xam ne amul leneen waaye la mu bari bari ay bor fekkutoon mu tayle ko kenn kon jëmm joojee moom la ñuy jëkkee wutal ko ca càngaay bu desee nag ñu door a jox kam ameeloon bor mbaa ñoom ameeloon ay bor lu bor ya bari bari rek dañu njëkk ci alalam mooy génneel ko ci loolu ñu koy waajale waaye nag bul fàtte ne dañ koy waajale ko jubluwuñ ci lu may càngaay yaag buñ dee fay kay sang ak kay gas ak yu demee noonu waaye boolewuñ ci nag xeeti aada yi nga xam ne dañ koy def ngir di ko saraxal mbaa ñu koy tofale baa ñu koy ganalee gan ñi nga xam ne ñoo fay ñëw ñooñu loolu aada yi ñuy dund la jotiwut ak dara ak kafaatu te génn àdduna nag bu fekkee bàyyiwut alali boppam duñ mën a génnee lañ koy waajale kon ñu seet ba xam am na ku ko daan dundal ci yoon koo xam ne la tax mu daa ko dundal du wàllu sëy day wàllu jegeñaale ci askan wala bu dee ci ba jaam amee mooy ci wàllu ak njaam bu dee ci askan ku am doom ji góor yaa ko war a dundal ba mu dëgër ba mën a liggéeyal boppam te amul benn gàllankoor bu koy teye mën a liggéey ku am doom bu jigéen moo ko war a dundal ba bam koy may jëkkër ba jébbal ko jëkkër ja koo xam ne it moom am nag man te ndeyam ak baayam ñàkk ba tey moo war a dundal ndeyam ak baayam jamono yi jaam amee itam ku amub jaam yaa ko war a dundal ñu ñëpp nag ku ci faatu te bayiwul alali boppam rek ka dund ba waroon ba tey moom la càngaay laak yëf yi waajtaay ya di war mu des nag bu fekkoon ne la tax yoon nekkoon yaa koy dundal mooy doon gum doonoon soxnaam yoon day jàpp ne bu soxna sa faatoo rek bu mu séega dal nay toog càngaay la ak waajtaay ya du war jëkkër ja mën na koo def nag ngir sàmm orma ñoom dañuy wax ne sax bu soxna sa wéradee jëkkëram duñu waral ci moom ne ko yaay wut garab ya koy faj dañuy teqale dund ba ak koddaay la ak dëkkuwaay ba moom jëkkër ja la war waaye nag bu soxna su demee ba wéré bi duñu wax jëkkër ja ne ko yaa ko war a faj bu génne àdduna itam duñ ko wax ne ko yaa ko war a wutal càngaay ak yëfi waajtaay yooyu yëpp daal mën na koo def rek ci kaw sàmm ormaat sàmm wëlëri waaye dara waru ko ca mën naa am nag ñi nga xam ne ñooy gëstu gëstu bu yees ñu ubbee ca yeneen ubbee yu bokkut ak yooyu waaye lii moom mooy li wér ci yoonu al imaam Malik kon ka génn àdduna su bariwut alali boppam ci ñu ko mën a waajale amutoon ku ab dundam war ci yoon ba ñu ne ba tey moo ko war a wutali yëf yi waajtaay kon su fekkee li ñuy wax bayti maal muy kees gu jullit ñi bokk moom am na fa ci la ñuy génne yëf yi càngaay laak waajtaay ya su baytu maal amul nag ni ki suñ jamono ji jullit ña ñooy dajale kenn ku ne def dara rek ñu boole ba man ko caa waajal jébbal ko boroomam dañoo waxoon ne dogu nañ ci ne sang ga ñuy sang néew ba door koo jébbal boroomam warugar la fardu kifaaya la nga xam ne bu ko ñëpp bokkee seetaan ñëpp bokk am bakkaar waaye dañuy teqale ne bu dee góor moom la tàmbalee jumbax ba ba ca bëtiwoom yi nga xam ne mooy awra ja buñ ko sàngee rek loolaay la war da ca des ñu sàng ko sunna la waaye agul ci war war gi moom mooy rek sàng awra ja ñu ne bu doon jigéen nag moom yaram wa lépp lépp lañu war a sàng sàng lépp yaram wa mooy doon waru gar wa du am teqale naa lee ca war ak lee ca sunna am na sax tam ñu wax ne bu dee góor it lépp lañu war a sàng mel na jigéen waaye nag teqale bi mu wax daal ñu bari moom la ñu wax bu dee góor moom sàng awra ja rek mooy nekk waru gar sàngal ca des doon sunna sopp nañ boo dee gunge ab néew nga dox ak sa tànk bañ a dugg dara bañ a war dara su fekkee bokkoo ci ña ko yore itam sopp nañ nga jiitu ña ko yore topp ci sa gannaaw ñu sopp itam ngay waaxu te ànd ak yaroog teggin bañ a mel ne kuy daw wax day mel ne kon dangaa ñeme ki nga jëm ci moom te ci dëgg-dëgg ci yàlla rek nga jëm ñu sopp itam su fekkee doxoog tànk xanaa dangaa war ba dangaa dugg dara nga bàyyi ñay doxoog tànk jiitu la nga topp seen gannaaw bañ jaxasoo ñoom di leen xatal wala boog nga gaaw jiitu leen ca barab ba nga xam ne fa lañ jëm si jigéen tam bu fekkee sañ naa dem ci gungi néew ba daañu leeral ka sañ ak ka sañut daañu sopp mu féete ca gannaaw di gannaaw nga xam ne bu amoon góor ñu war sax bañ ne na góor ña des ca gannaaw ñay dox ak tànk jiitu leen dañu bëgg jigéen ja moom donte day dox ak tànkam it na des ca gannaaw góor ña war jiitu ko bu néew ba dee jigéen ñu sopp dañ ko waajalee ba di ko génne la dale ci fañ koy génnee ba di ko yóbbu fañ koy jullee ba bañ koy suul ba àggal ñu suturaal ko sutura soo xam ne bët du tegu ca jëmm ja lu may ña nga xam ne ñoo koy fabaka wàccee ka suul bu ñu dee fab lu mel ne ab tànt wala ab sànke di ko ko tiimale nga xam ne kenn du seen jëmm ja ak fu ñu mën di toll ba ba ñuy àgg ci fañ koy dencee ña koy suturaal rek ña koy suul rek ñoo koy gis loolu taamu nañ ko